ginnaaw mënu sante yalla julli sang te du sallallahu alayhi wasallam sallam ya, sante Serigne Touba suñu yaakar tay ëlëk ñi ngi woon ci tombu juroom ñaaral bi wara ñew ci tombu juroom ñettel bi fasiyene ci leral nit ñi nga xamne ni dagal na ñu dog ci wéru koor te dara du leen ci fekk ka ci ñëk moy nit ku tollu digënté nit jigen bu ëmbé bu fekkee jàpp na ni koor gi dana métti ci moom ba mën na cee loru mën na cee jële ay jafe-jafe ci wér-gi-yaramam ci boppam wala ay wér-gi-yaramam jafe-jafe ci doom ji mu ëmb waa dagan na mu dog kooram ñaareel bi mooy jigéen ji nga xam ne dafay nàmpal ki nga xam ne dafay nàmpal moom it jàppee ne bu nampalul doom ji doom ji mën naa loru te bu wooree du am lu ko nampale te amul leneen lu mu jëndi lu remplacer liñ koy nampale te it doom ji nanguwul keneen ku dul moom bu boobaa kooku dafa war a dog kooram kooku bu wóorut loolu dara ju fekk man daal ñaar ñi bokk na ñi nga xam ne bu ñu dara do len ci fekk waaye ñetteel bi mooy it koo xam ne dafa doon mak mak lo xamne ni ak yi bari na da nga xamne ni ni bu wooree moom it amatul kàttan ci woor bu woré mën na am jafé jafé ci wér gi yaramam ko fi dafa war a bañ a woor bu wor mom dañuy bëgg muy saraxe aw ñam loolu tax ñett yi dañu am ngànt loo xam ne nii tax lislaam teggil na leen koor mooy jigéen bu toll diggante te jàpp ne bu wooree mën naa loru wala mu lor doomam jigéen buy nàmpal jàpp ne bu wooree moom mën naa lor doomam moo xam ne dem na ba amatul woor ñooñu kon dañ leen di teg yu koor yi